waaw Nour. maa ngi lay nuyu bu baax yow sama xarit. maa ngi lay fay bu baax Nour. di rafetlu bu baax tànk yi nga seq ñëw si man. loolu daf maa war rek. ginnaaw loolu nag. Mhm. am na lu ma bëggoon ñu waxtaanee ko. ba jàmm la. jàmm la waaw. kon maa ngi lay déglu. wallu. Mhm. ndax yëg ne magum dëkk bàyyi na bàyyi fekk. waaw Nour yëg naa ko kay waaye leen rek moo ma si mooy bëgg na maa xam baay fekk lan la def magum dëgg ba tax mu jàppoon ko wallu dara la ko magum dëkk deful xanaa kay def ko ëpp doole doon ko ko jaay te xamul ne doole moom yàlla rek moo ko yaloo waaye nag wallu luy jot jot na ginnaaw dee mhm. jot na sëkk ñu waxtaan ak Latiir ndax gor warul wax muy dañ te Latiir dafa wor te bul fàtte ne moo ñu doon wax ne ku wor dañ ko war a rey kon jot na wallu Latiir ñu rey ko. Nooru wax nga dëgg kàddu googu day benn lu ma ko daan dégg ci Latiir waaye man ak yenn nag bokkuñu xalaat foofu rey gi moom ànduma ci benn yoon. bu ma soñoon daal ñu xool beneen pexe waaye moo gën ñu rey wàllu gor laa sa wax ji la Latiir wax boo ko defoon moom rey la kon dañ ko war a rey waaye nag lu tëw xam lu ne dafa yàggul sega moo jekkoon jekkoon dem nañu ko déglu rek xaj na bu dikkee danañu indil ay leeral lii daal moo nekkoon sama xalaat waaye rey gi moom ànduma ci benn yoon. baax na dégg naa li nga wax dinaa si bàyyi xel. baax na Nooru maa ngi rafetlu say xalaat bu baax a baax lii rek moo taxoon bu ma daan wax naan latiir latiir nga ko daan faral lii rek moo taxoon waaye tey dem nga ba yëgal sa bopp man na xam naa uma toogaay. mangi ngi ci deug bu doon do yendo bal ma dem fan yi moom naaju da xawa tag baxna baax na sama xarit jërëjëf no ñu yendo jam Nijaay ak yaram mi ngi tane waaw tane naa ngay jóg nag di bañ bañ lu nag da bañ bañ lu boo tëddee rek damay jaaxal nag allahu akbar buri naan ma da bañ bañ lu allahu ah, xam naa ne dangay bañ bañ lu nijaay waaye nag boo tëddee man damay jaaxal loolu kata? Hmm. layang tax. waaye yaa ngi ci yëgu tan bu baax. Ya, alhamdulillah alhamdulilah. waa lan nga def magum dëkk ba tax mu tegg la coono yu metti yi. man mi ma def magum dëkk dara loolu moom xam nga ne yaa ko tey sax ne amut. ah man kat lii damaa jaaxal ñëw rek fii. magum dëkk kay magum dëkk daa bañ ma wax xam na ne li ma ko xam bu ma ko waxee loxo dem gémmiñ te du ànd ak ab hmm? <laughs> jibut baaxut waaye nag xanaa li nga xam moom boo ko waxut kenn it man mii di sa soxna nga wax ma ko wax ko bu jotee ndax xam. naa fa ko bu jotee ñëpp koy déggandoo moom nag yéeneem def na ko mu sës rey ma la bëggoon diggoon nama ko saa borom antu ci la tee dee nag moo tax mu war a xam ne la mu bëgg du insa allah dina wax te dina gunge gone yi bo ci seenu mucc defar len wax len lepp aduna bi di dox mom nak mok yalla mo xam mënut ci man dara ah, lo xaj ci pep ci man man la ci ndigalul mag ak morom ji man buma ma li nga xam nga wax ko rek mu jeex ndax yow gone yi xam nga ne gone yi duñ la baye gone yi duñ la bàyyi mukk magum dëkk bi la fitnaal yenn fitna yi ndax bi nga nekkee fee waa dëkk bi ñëpp a sonn ñun ñii say njaboot de sonn nañ waaye waa dëkk bi ñoom it sonn nañ lool am nañ lu leen métti sant naa leen gërëm naa leen ci dinañ am ndam dafa tolloog nag wala nox nox nox nox nox dafa war wari di war wari di war wari waaye nox nox du jëkk bu jëkkee du mujj gone yi dinañ am ndam faw ca dëkk bii dana tegu ci yoon bu soobee yàlla ah loolu rek da lañ bëgg moom dana am nag moo waral gone yi di xeex waaye nag magum dëkk moom ah borom caq de moom daa bokkut ak borom baatum neen xeex ak moom moom dafa yombut ndax mi ngi nii xam nga ne fekk borom kër ci njabootam jël ko yóbbu a njabootam di tumuranke fan yii li ñu daj ñoog yàlla rek ko xam kon nag bu ma soñoon nga leeral ko rek mu jeex garab gay doon garabu pénc law ba ni ko xel ma du ja dem ba mu koy gajje day xëy xëy xëy ñu ma maa la ko wax nag jàppal fii li ma la wax nag man lu ma la wax di nga ci bët curki cam xamul maam mooy fon wax wa baax na loo bëgg a añi tey laa xam bisaab laa xam bisaab bu doon ci nawet sax am daal kutte waaye fi mu ne na. fi de weesu na. yàlla baax na. Eh, la ko defaral ba nga mën koo lekk. incha fii nga mën a amee yàlla. Mhm. fii nga ko mën a ñàkke tuub nag mi ngi mel ne. Mhm. nga teg sa tànk bii ci aw xal. wadet ngay def ci doo ko ca tegaat. tuub ba la wóoree ni nga def li muy ñaaw ñaw ñaaw doo ko defaat ca ci sa xol bii yàlla jéggal na lépp. mel na nga kuy doogu juddu mm. waaye nag boo ko defaatee da nga taxaw jàkkaarloo yàlla da ko maa tey mënoo ci man dara booba waa nag du baax ah man de nijaay xanaa la ma weesu loolu laay rëcc waaye lii ma jëm xam naa bu baax fi may teg sama tànk ndax gis naa ne magum dëkk moom lu ñu naqari rek lay wut ndax ku jël sa nijaay denc ko di ko fitnaan yéene wu la jaam yalla baana baana wa kon baana te daatal nga dalu ma dem defaral la laaxu bisaabi defaral la naa la bu yeeg bisaabi bu ma noppee joxaale la ko te dal noonu dalu alhamdulillah ala kulli aal waa Codé. naam yaay. Hmm, Codé sa yuuxut bi yii xumb na lool. doy na waay. yow mbaa jàmm nga dem yuuxu. yaay jàmm laa doon yuuxu du jàmm démb de dama doon gént lu doy waar. gént. waaw yaay gént de laa doon def sama yaay daal moo ma doon feeñu ci gént. sa yaay. sama yaay waaw. di ma wax ne kii mooy sa baay. kan. bi mu naan ma kii mooy sa baay nag fi ma koy waxee kan la kan la fi ma yeewee jotumaa wax turam. ah. wax turam de ci gént gi daal mi ngi naan ma kii sa baay kii mooy sa baay bi ma naan ko yaay kan la kan la foofu nga ma yeewee. ay man yàqal naa la di. doy na waar de. waaye nag xam naa dafa bëgg nga di ko ñaanal. xam naa nag daf may feeñu ngir ma ñëw ci barabam yi xam naa dinaa fa dem bu soobee yàlla. loolu kay koddu doo ko waaj. naa fa dem bu ngoonee. soo fi jógee demal armée li nga ziyaare ko da nga ñaanal ko. Mm-hmm. da ngay julli di ko ñaanal. incha allah waajur yi. Mm-hmm. bu ñu génnee àddina bàyyi fi njaboot. Mm-hmm. dañoo bëgg njaboot ji di leen ñaanal. sa yaay. bu la feeñoo ci gént rek. jàppal daa bëgg nga di ko ñaanal. amna naa ay ñaan la may laaj ak dina fa dem siar ko defé ma ñaanal ko man de sante naa la sax lay wax mhm. di la hmm ko du sama liggéey kër gi nga teggil ma ko jamono ji de ku ma xool day men yaangi gëna sante yalla deug la yaay te loolu yow rek ya ko waral do deug la yaay bi nga fi duggé ba légui defatuma dara mhm. fu fuma genn dañ may xoolaat may gëna sante yalla deug la te lepp ya ko waral dëgg la ya? war yaay. naa tamit ci yow. dëgg la yaay loolu moo war ndax bi ma ci koñ bi jugee lal ba tumuranke ñëw fekk sama yaay wàcc wuy ji suñ borom mënoon ngeen ma bàyyi si kër gi ma dëkkoon man kese su doon man rek ma fa nekk ma war dina ko def te da ngeen ma indi fi si kër gi ngeen def mo comme sen dom warul lewu leen ma moom te ma gën seeni doom ngeen teg ma ca kaw lépp lu ma la defal rek mel na ni sama yaay laa ko defal ndax yéen ñaar benn ngeen woon. damay dëgg. te dëggal ngeen seenu xarit ndax wan nga ne ma ñàkkuma yaay ndax yaa ngi fi loolu nag moo a war. lépp lu ma la defal damaa war. doo mës a ñàkk yaay sa yaay ngi toog. dëgg la wan nga ma loolu. lépp la sa yaay war a defal. Mhm. ñun dañ la koy defal. dëgg la sa yaay démb lañ doon tey. li mm-hmm. ngay wax ni sa mi ngi tooyal sama xol bi. dëgg la sa yaay wéetal na ma wéetal boo xam ne. Mm-hmm. sa yaay lu bari daf ma ci daan génne. Mm-hmm. sa yaay bu ma geesoo gis ko. sa moom naqaru kër. sa yaay ma ci daan waxtaan sa yaay laa ci daan waxtaan ma ciy génne. kon kodd lu ma la defal rek. dama la ko war a defal. bët bi may xoolee latir mi sama doom. te mu dem yoonam tey abaan bàyyi ma ci kër gi bët boobu rek laa lay xoolee. dëgg la. donte Latir dem na. Mhm. mais yaa ngi toog sama wet. jooy ma benn doom. Mhm. yow boo fi nekkutoon. Mhm. day gën a ñaaw. ko sama naqar dindi ko. ko du yaa ngi waxtaan ak man. ko du boo fi nekkutoon Latir dem. fan laa koy waxi jee. billaay loolu du am. waaye na sant naa la bu baax gërëm la. dëgg la yaay ñoo ko bokk sant gi ma man mii la war. dama lay jaajëfal rek bu baax te xam ne àdduna amul solo at yi nag ñaan rek yàlla dina ko indiwaat soobee yàlla. ah na ñaan yàlla rek. dëgg la yàlla baax na yàlla bari na sutura. nijaay waaw ndax seet nga bàyyi fekke bàyyi fekke bàyyi fekke de seetiwuma ah nijaay yaa bàyyi fekke de ay xarit ngeen waaw tamit dëgg yaa foroon te yaa foroon kon nag ni yaay dama nga seet baay fekk baay baay fekke de dafa nekk nit koo xam ne nii ko te waxtaanal ndax heure boo waxtaan ak moom mu lay tëkku naa li ma la xamal te xamul ne fii koo fi xamal xamal na la barki démb boo njaay dem naa këram di waxtaan ak moom si njëkk ak teraanga maa li ma la xamal ma ne ko yow di ma la xamal fii koo fi xamal xamal na la man nag dinaa ko seeti ndax sa wax ndax yow loo ma ñaan dinaa la ko may loo ma ñaanu timit tamit tamit si sabab dinaa ko def incha allahu rabbi dinaa fa dem ndax dégg naa sonn lool waaye loolu rek moo tax dem ma fa woon. man nag nijaay waaw bu goon maa xëy baa fekk mhm. la def magum dëkk mhm. ba tax mu teg ko coono yi mu nekk magum dëkk de ay ay jafe-jafeem ak naqari ak naqari deretam ak tàng xolam ak moom sab dëkk na ku fi watu ku neex ma woŋ la moo nekk ci moom waaye nag yàllaa ko doole fuuf gis nga lii muy def nii am na ku ñu fi jiitu woon di ko def te ba mu jeex dafa jeex lii lii mu nekkee nii ah man damaa yaakaar na ñun ñëpp buñ mànkoo woon xeex ko mu deñ waaye tey boo woon bërit nan nan ko defandoo ba ñëpp na waaw bona bona bërit ben yoon kenn ko da nga gis mu jaaraat wenen yoon man nak lolou dama si fekk ñun ñëpp non dundandoo jafé jafé ne heure bu waree jeex dina jeex bu warta jeex tamit ñoo xam ne loolu la dogal man duma ci waxti dara ndax boo ben amna ñu nekk si dëkk bi dañ dem wax ba wis ko loolu nag loolu ma yow it li lay ñaan saw lamiñ bu ci dugg dama séti feeti seeti bàyyi fekkee la koy séti si jamm ñew si jamm mu jeex tak yow nak lima lay ñaan moy lu metti metti la la do ñaan rek fexel ba sa kaddu bu mu joge mukk ñu ne ya ko wax dégg nga maam. dégg naa baax na yaay. baax na maa ngi àgg daa ko seet man. baax daa ko seet. sama latiir ay naa la beru ba sonn te fan yi seetlu naa da ngay beru rek lan moo xewati. ne la Yacine sama xel dafa dalatul dara. Panidal, dal am ab xalaat bu yaatu rek sama xel mi da fay diixi jaaxati lu bari xamna ni nak bo sagnul dina ñibbi wat kër ga. ñibbi. waw yow xol nga li nga wax. ndax kat jamono ji mom limay gis ci ak notel dalul sama xel dara. moo tax faaw ma toog xalaat bu baax a baax ba xam nan laa war a mën def ba delluwaat sama kër. sama Latir gis nga waxu ñibbi bii dama bëgg nga tegaat ko ci suuf ci nu mu gën a gaawee yow xam nga waa kër gi ni la bëggee rawatina nag sama ndey te bés boo ñibbee. bu boobaa waa dëkk bi dinañ ne daa am lu bëggoon xoolaatal bu baax li ngay wax boo ñibbee dina metti loolu loolu nga wax xalaat la ndax kat maam daana lakk naan boroom dégg-dégg bu sori du yebal noppam ndax léppam xelam kon tey war nañu mën a doxantoog suñuy xel da ci xalaat ndax nit ak bàyyi ma ak dof xel rek moo leen wutale nit nag bokk yàlla yàlla dénkee xel te du ci xalaat mën nañ ko yóbbu ci bàyyi ma ya te man Latir bëgguma ñu ma yóbbu ci bàyyi ma ya xel mi ma yàlla jox dama ci war di xalaat foo man di toll moo tax ma bëggoon dem dëkk ba balaa dara di xew dégg naa bu baax li nga wax waaye umpale woo ne man lépp luy tilimal sa der bëgguma ko te boo demee damay wéet dem bi moom tegaat ko ci suuf andi sa loxo bàyyil xalaat bi baax na xam naa pexe du ñàkk ci pexe du yàqoo ci am xel fii ak borom dafut pexe tax nit not mba pexe tax xaleb naar not gileem bay xëccik nosam waaye pexe tax lu lislaam teg nu jëf ngir waaju ñàkk xel du amu yiw te du yilif kenn pexe daal mooy waaja dëgg wér da ngay kenn ci man motax sa bo boo rek samay bañ dé feñ bëggatuma ñu lay wax ndéla bu yasin nan lay wax ndéla bu latiir ah ndéla bu latiir waaw lolu na koy gis na ñëpp di def ndéla bu latiir ndéla latir ndéla latiir ndéla latiir rek <laughs> mo dàq mo dàq kay ndéla latir. nañuy wax latir. latiir ndeela latiir sa baay laatiir la may wax laatiir